dolli jaar maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp góor jigéen mag ak ndaw kontaan naa trop sama xool dafa sedd bi ndax li yombul na bu fekkee ouverture bi loolu sedd na sama xol ba ma tee wax maa ngi leen di sant yéen ñi fi teew ñëpp di kontaan loolu nag ci teew bi ngeen di teew mhm. alors est-ce que mën nga ñu ñëwoon un tout petit sa partenariat ak waa Tekno ak euh, yan solution nga def ba am ñoom partenariat bi la ba tijji ay boutique boutique si Sénégal. waaw comme ñun li ñu ñëpp xamee rek muy ci liggéey depuis ñu commencé ba tey ci loolu rek lañ nekk ba yàlla dogal aussi partout comme Samsung comme Tecno tey ñu def ba am partenariat ba tijji boutique bu mel nii fii ci Parcelles Assainies loolu yëpp xëy suñu liggéey moom moo ñu ko may équipe bi nga xam ne aussi ñoom lañ àndal muy waa CSB ñëpp su limee damay juum ñoom ñëpp xam nañ seen bopp ku ci nekk tamit. ni nga ciy jàppe déglu déglu aussi yëg nañ ko te xam nañ ko baax a baax di ñaan yàlla dool di tawfeex yokk ñu xewal ba lépp lu ñuy yéene suñu borom may ñu kàttan ba njëkk rek. CSB ban année nga ko créé ba fii ñu ko créé en 2013 on va créer entreprise mais avant loolu nag nekkoon nañ di liggéey ci ci yeneen mbir yoo xamante ni xëy na mbir yu bare bay la mais ci 2013 lañ taxawal entreprise bi commencé Colobane muy fi nga xam xamante ni fa laa doore lépp. foofu itam du ma ko fàtte benn yoon parce que sama lépp fa la ba ni yàlla dogalee aussi ñu am ay boutique partout ku mel ni rond point cité kër góor gi Gueule Tapée ba bi ñu moom mooy bi nekk parcelle ci akapes ay téléphone ngay jaay wala day am ay mat matériel électronique yeeg téléphone rek lañu gën la ñu ñëpp gën a xamee moom lañ commencé ba ñu yàlla dogalee bu ñu ubbee boutique bi nekk rond point cité kër góor gi moom lañ commencé di def électroménager boutique boobu tamit ku ne xam na ni c'est cent pour cent Samsung ñoom tamit aussi Samsung laa fi àndaloon partenariat ba tijji ko foofu noonu ko demee fu foofu dañ koy jaay lépp li nga xam ne lu jëm ci électronique la ci yenn marques yi comme Aztec ak yenn marques yi nga xam ne ñu ngi koy jaay foofu su dee Colobane ni ko ñëpp xamee boutique la boo xamee ni moom marque yëpp lañ fay jaay Tecno Samsung Infinix Itel yooyu yëpp lañ fay jaay mu doon boutique boo xamee ñëpp xam nañ ko ñi nga xam ne aussi dañuy jënd di jaayaat yëpp xam nañ ko dañ fay ñëw si di jaayaat yàlla dogal aussi foofu moom mooy suñu feeb daal fa lañ commencé daanaka mooy suñu lépp moo tax duñ koy bàyyi ginnaaw jamono jamono ju nekk nga xewle say ay euh, xarit ay kilifa ñëw teewal la lu si mel ni ñoom Seydina ñoom Junior ak sëñ bi nga xamante ni moom it euh, ñëw na jëmal bés bi ñooñu tamit wax ci ñoom waaw ñii moom yàlla dama boole ak ñoom waaw wax dëgg yàlla bu leen gisee sama xol dafa set ndax maanaam sama boutique fee kër googu duñ fa jóg chaque jour ñu ngi fa ku ci bi taxaw sama wet Seydina Thioune ba ci Junior Cissé Lo sama diggante ñoom ñoom ñëpp ñëpp xam nañ ko maa ngi ñoom benn lañ daanaka saa su nekk ñi ngi si man ñi ngi may jege comprendre nga lépp lu ne si man xam nañ ko lu ne si ñoom aussi xam naa moo tax ma duggee fekk leen ñu toog sama xol dafa sedd ba tax na awma seen fay yàlla rek laa leen di bàyyil ak Serigne Touba bi ñu boole mu fayal ma leen ci kàttul yàlla wala may ñu kàttan ba lépp lu ñu yéene suñu xol ak suñu yoon rek suñu borom may ñu doole ba ñu yeggale ko si jàmm maa ngi leen di bégg lu bëri sama propre famille samay frère samay sœur ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar di leen bëggee ak sama soxna aussi day aw maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp di leen xel bu baax a baax sama foo mënti nekk sama àdduna. beneen étape bu projet bi lan la. waaw xam nga ñun moom waaw amuñu limite quoi amuñu parce que ay jeunes lañ te gëm nañ li ñuy def quoi te bëgg nañ ko aussi te naa ni aussi fépp fu nit war a kaw suuf muy ci biir réew mi wala bitim réew fu ma doon rek gëm nañ ni war nañ fa mën a yegg un jour parce que am nañ pas-pas bi te ñemee nañ ko koi te liggéey rek lañ gëm depuis ñu nekk li ñu nekk ba tey ci rek lañ nekk moo tax jàpp naa ni amuñu limite suñu yoon je pense que lépp lu ñu xalaat ni ko war nañ fa mën a yegg rek je pense que suñu yàlla mayee kàttan ak gudd fan nañ fa yegg ci kàttan yàlla. Seydina ak euh, Junior euh, soo ñu joxee ndigal rek nga sànni ci quelques kàddu rek. waaw kon euh, kilifa suñu diggante ak ji jiiri di nit koo xamante ni day nit ku baax nit koo xamante ni dafa ëmb nit koo xamante ni dafa gëm liggéey jàpp naa ne ñu mel ni jiiri dañ leen a war a bàyyi xel ci réew mi ndax ay sénégalais lañ ñëw investir ci réew mi nekk ay gone liggéeyee fi ba yegg si fii ñu fi yegg si jëli ay partenaires partout dans le monde di leen fi indi ngir njariñu askan wi donc ñu mel nii euh, yéen ñu mel nii rek ngeen war di wane ngir loolu dina tax jeunesse bi mën a référé wu ci ñoom xam ne ñii ay royukaay la ba tax na ji looloo waral ñu teew fii tey moom nag lii bu guléet la ko def parce que am na ay boutique yu bëri ci réew mi waaye lépp lu fa am boo demee ci prix yu yomb la la koy joxe ba noppi li gën a neex ci ay mbiram mooy yëf yi da koy garan mooy tey bula la jaayoon téléphone téléphone bi dem ba ci biir mel daa am lu ci xew boo dellu see da koy jëlaat ci saa si defaral la ko ni la ko bëggee yónnee la ko te loolu mooy li ñëpp bëgg ndax kuy jël sa xaalis di ko dugal ci barab bëgg nga boo koy dugal ci mbir mu nekk loo xamante lu wóor la ñun nag loolu lañu gis ci moom gis ci moom ay yar ak teggin moo tax tey bi muy ubbi si lu mel nii ma ñëw ànd ak Serigne Bara Mamor ànd ak suñu xarit Junior Lo Serigne Fallou Dieng am na yeneen kilifa yu ne ci biir waaye ndigal li ma sëñ Bara joxoon mooy ma wax ne que rek jili moom lu mu nekk dinañ ko am ak moom ndax nit ku baax la te jàmm rek la bëgg ak liggéey te ñun ci loolu lañu ne ndax bu dee ni dañoo nekk ay nit ñoo xam ne ci ci diine la ñu dox ami taalibe li ñu war mooy di ci lu baax lépp lu ñu gis loo xam ne lu baax la war nañ leen caawoo moom nag ci loolu kenn jiitu ko moo tax suñu teew fii tey. waaw ah, ah, Thioune Bambey ñu seetlu ne ah, ñu si mel ni jiili dañuy liggéey lu am solo waaye des dañuy gis xale yi. dañuy dajji boutique yi di ci jël loo xamante ne du seen alal ndax gis nañ ko xam berki boo Njaay loolu it lan nga ñu suma mën waaw loolu moom du ak njub nit ku baax da ngaa war a tegu ci ak njub da ngaa war a tegu ci lu leer xam nga fekk nit kuy liggéey koo xam ne sénégalais li ni yow di sax nawle ubbi boutique am nga ñëw dugg ci biir boutique am di daj mbiram di dem loolu jëfi bu lu kenn xam loolu kenn mënu ko qualifier qualificatif boo jël rek doo ko mën a doo ko mën a sax wax donc loolu képp ku ko doon def na nga ko bàyyi te tëkk ci suuf te jéem a góorgóorlu liggéey da ngay fexee góorgóorlu def ni borom boutique bi ndax boutique bi ki ko moom sénégalais li yow daa am ñaari tànk am ñaari loxo yow noonu nga ko amee boo góorgóorlu yàlla mën na laa def ba nga am boutique bi wala nga am lu ko raw kon loolu képp ku ko def moom mën ko bàyyi te xam ne loolu amul ndem jërëjëf jërëjëf ah, ah. bi Serigne Bara Mamor mi nga xam ne tey moo fi Serigne Touba ci jotaay bi jotaay bi ku ko gis xam ne maanaam jotaayu kilifa la jotaayu ndaw lu am pas-pas jotaayu ndaw lu gëm boppam la jotaayu ndaw bu xam boppam ndax nag ñun ay sénégalais te kenn du jugee foogale mi ñëw di ñu gérer suñu réew mi di Sénégal ji koy comme koy wax. mooy Sénégal tey bu ñuy wër référence buñ ko wër fenn ci Sénégal maanaam pour pour ku ne rek di nga xam ne kii référence la référence nag mooy nit ku xam boppam nit ku gëm boppam un travailleur un digne fils du pays xam boppam gars yi na leen waxante dëgg ku waxul dëgg di nga wax leen lu dëgg mooy que jiili tey kenn neen maanaam leneen luñ mënta wax lu dul ñaanal ko yàlla mooy mu gudd fan waxuñ leneen lu dul lool parce que tey ñaata ñaata jeune lay jël di leen liggéeyloo ci Sénégal bi ñaata di liggéeyloo te maanaam tey li ma gëmul mooy ci àdduna mooy doomu diw tey jii nii moo defar boppam tey moo defar boppam amul kenn ku mën a taxaw gannaaw Serigne Touba ak ñaari waajuram ak ay frère am yu ko jàppale moom moo taxaw boppam dimbale boppam donc nag sëñ Abdoulaye nee na jàmbaar amuñ kuñ dimbali moo am waaye man gëm naa ne tamit jii moo dimbale boppam ba mu toll fii mu toll donc nag gars yi na àndaat ñu taxawaat ñu xam nga ne ñun ay jeunes lañ nañ gën a bëggaat suñu réew gën a taxaw suñu xam ne ñun kenn duñu kenn mënuñoo taxaw kenn mënuñoo jàppale suñu réew pour ñun en tant que jeune donc nag moom ñu ngi koy ñaanal yàlla bi ñu ngi lay ñu ngi lay ñaan ñu ngi lay ñaanal mu gudd fan ndax ji li bu guddee fan lu bëri ci réew mi dina dox ndax c'est un travailleur donc daal li moo nekkoon kàddu ñu boole yi ma dem fi moom jënd fa benn ko Colobane ci bitig bi mu war ma diplôme bi ko Samsung jox ma ni ko de lii de bu ma doon yow dinaa ko te bu ko rax mu mun ma bàyyi chef di ma ko mos a ma di fa dem ba yàgg man ko ji ma jox la benn conseil yu mag fii baax na mooy cosaan bu ko tëj mais wutal feneen ndax am na façon client yoo xam ne nii également pour ñu ñëw fii xaw a jafe mu toog ba yàgg mun ma ubbi naa gëltaat ma di ko fekk gëltaat lu ma soxla bu ma yablee mu jox ma ñu ba ko des na de ba benn jour mun ma ubbi naa cité kër ma dem fa fekk ko fa ñu ko lii de vraiment mérité nga ko mu nekk nag koo xam ne bu sérieux ndax man damay seq ak moom lu bari ci jaasoo nga xam ne noo bokk dëkk Kajoor moom ci Maxal dëkk man ma dëkk Pekes mu nekk xale boo xam ne dafa yaru gëm li mu def respecté kàddoom te di jaay euh, qualité donc comme ni ko ñëpp waxee rek lii di dafa war a nekk un modèle d'entrepreneuriat pour les jeunes sénégalais du caagi da ngay jàng ay am ay diplôme supérieur rek da ngay gëm li def bëgg ko jiital ci sérieux boo ko defee partenaire boo xam ne ni seq nga ak moom dina la respecté lii di na dem ba ubbi fi nekk fi un représentant de iPhone parce que dama xool ni jeunesse bi nekk également ñi ci bari lépp loo di may iPhone moo leen ko gën a mais ni mu koy defee rek di dem ndànk-ndànk a yàkkam sérieux ngeen ñaanal ko sëñ bi ñi fi nekk jàppale ko te ñun ñii ay sénégalais également ñu ñëw àndandoo sérieux damay toog léeg-léeg commandé ko ay millions mu livré ma mais nag dinaa fexe ba nga également euh, engagement bu ma moom ma respecté ko mu respecté ko ndax dafa am man loolu moo tax nag bi ma waxee tey nii dama am ay yitte am ay war a tukki mais dama ni lu mu mën def dinaa ñëw taxaw sargal ko wan ko ni ko sama rak nga dinaa la encouragé ndax c'est un modèle aujourd'hui d'intégration économique un modèle boo xam ni sénégalais yu bari war nañ ci xool jàpp yal na yàlla suñu borom bi taxaw la ci barke Cheikh Khadim ñu bokk jërëjëf